dal leen ak jàmm mbokki internet yi way leen di abonné mën nañ ne nag ndaje ma nga xam ne rek ma nga doon am foofule ci assemblée nationale euh, pour nag modification article 87 ba nga xam ne rek jamono bi ñu toll nii mën nañ ne daal dinay jot juru coow euh, te lañ sa jublu nag mën nañ ne du lenn lu dul rek ba ca gën a fees di wàññi élection yi nga xam ne rek moom mooy am fii ci biir réew mi mën nañ ne nag loolee gannaaw ñi nga xam ne rek ñoom ñoo fare ci taxawu Sénégal ñoom nee nañ xalaatu ñoo voté mbir minimel wut contre la ñuy voté ñi nga xam ne nag ñoom ñooy opposition bi ci mën nañ ñoom ñëpp daal ànd nekkat article bi nga xam ne rek bëgg nañ caa def li nga xam ne moom mooy ay modification gannaaw nag bi ñu daal dem dialogue national ca ya nga xam ne rek jot nañ ko faa tënk bokk sa nag yi nga xam ne rek moom lañ fas yéene wote niki tey rawatina nag bokk ki nga xam ne moom mooy président euh, Abdou Karim Wade ak ki nga xam ne moom mooy Khalifa Sall ñoom ñaar ci élection yi assemblée mën nañ ne gannaaw ba ñi nga xam ne rek ñoom ñooy waa wàllu ak waa taxawu ñoom ñëpp rek daal di àndandoo nekkat eh, modification yooyee xel xalaatul ñoom ñii kat ñu koy voté ndaxte kat président de la république gannaaw ba mu defee déclaration ne bokkatul ci li nga xam ne rek moom mooy élection yi dafa waroon a ànd ak nag li nga xam ne rek moom mooy ngoram mu daal di dem canam gën a jekke rek bàyyi leen ak seen ëllëgu réew ñoom ñii xam nañ naka la ñuy daal di taxawee mën nañ ne kàddu yi ni mel naka daal di jib ni sànq ci député yi nga xam ne rek ñoom ñooy député yeewi euh, député ñi nga xam ne ñoom ñooy waa wàllu ak waa taxawu daal di koy yëkkati pour nag xam ne la nga xam ne rek moom moo leen naqari jamono bi ñu toll nii foofu la ci assemblée nationale.